أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان قد rahmatulah wa taala wa barakaatu tabarkalla macha allah maa ngi leen di ziare képp koo xamante ni yaa ngi toog si télé bi di ma xool ak say bët moo xam youtube rawatina Skype Imo Facebook waa diaspora maa leen di nuyu moo xam oto moo la fa yóbbu wala engin wala scooter tabarkalla macha allah suñu émission du ma si mos a wéet benn yoon damaa ànd sama sponsor yu baax yi ñoom ñàppe ñax ñoom xeer ah ñoom oto bi nga xamante ne comme oto corona bi ñoom mburu léegi ku bëgg si da ngay woote si 88 1 million 500 200 milliards 200 millions su ko defee dal di gagné dal yu yaañu yu baax yi ah macha allah tabarkaala tey suñu émission du thème tey réponse la question réponse yamal yow fi see waay yow su ma def émission nga may yàqal nii rek kii nee na xajaa boo wooree dinaa ndox ba xam loolu yàq na koor waaw man genre question yi daf may neex parce que wóor dinaa ndox yàqul koor Mantu budan do hoppo fu ngana Korea ko dia ko do hoppo anta go pas que dafa and mikro micro micro manan micro sax ha bu den do hudu binna na mu nga continuer sa koor bëggal bu la neex nga daari tok kal masala man len di ziara ki raja bo woré ba paré di lido ba xam lido day yaaxu koor waaw mën nañoo ne lido dina iya yaaxu koor du yaaxu koor ndaxte bu dee da ngaa lido gagné nga nekk premier sa koor yaaxuwul wala nga lido gagné 6-1 sa koor yàquwul wante bu dee da ngaa lido nekk ndaare 3 pion ay ndaare 4 pion ba 7 pion loolu c'est anormal loolu day yàqu koor ndaare 3 pion day yàqu koor wala nga gagné am 2-6 2-6 day yàqu koor bu dee nag bëla nga am boo jàppane sa koor mën nga kaa continuer bu dee de cases la boobu koor yàqu na ñaan ni koy sëy yëpp ñoom seen yaram araama na àjjana ñoom bu ñu deewee safara la ñuy dem da te amoo droit di lido di def ay 2 cases loolu baaxul gineen suy daara jaab boo wooree ba pare di teg gerefaas wow weeru koor tabarkalla masàllaa maa ngi leen di ziare weeru koor weeru yiw la weeru bonus la parce que lépp la si wootu yaaba lay doon du nekk du nekk bàkkaar yàlla da lay effacer sa bàkkaar yi nga def yépp ah boo wooree di teg gerefaas loolu baaxul waaw mais bu dee gerefaas naturel c'est naturel لوليا خنكور نسمى لنتوري دفسير اي 300 ميل اي 50 ميل لول بوكو تيغي سوير كور غسا كور يا خور وانت بودي سنت تينغا تك nga genn ci naaj bi naaj bi japp la nga woxatu énervé dem na ndox lool day yak koor seen tig anta koor naaj bay tax anta koor tabarkala masala suñu question mi ngi waji jeex ba tax na benn question mo dess ki neena sey dara jaaw bo woore di connecté wu bo xam connexion yak na koor connexion d'une part eh, yakul koor ya, d'autre part yàq na koor loolu mooy leçon dissertation parce que sooy commencé da nga naan d'une part d'autre part ba tax na d'une part koor ga la koy yàq mooy wifi ndax connexion ñaar la soit da ngay jënd pass connecté wu wala nga yor sa wifi di connecté wu dugg fu la neex wifi munoo connecté wu bañ ne maa ngi tufli sax maa ngi tufli wifi boo siy connecté wu mu soo dugg di connecté wu ñu ne la pass épuisé ba tax na sit bu leen neex la ñu dugg di seetaan lu leen neex loolu day yàq koor yamal loolu day yàq koor bu dee passe internet nag tabarkalla masalla loolu yàqute koor su ko defee suñu émission mi ngi jeex ne naa leen sponsor yaa ngi nii woote leen si 88 1 million 200 200 milliards ngeen gagné si lu baax yi ba tax na gis ngeen lu xew léegi sa àdduna bi kenn mënul dem kenn mënul dikka ah, man maa ngi sama kër ak sama nunus moom tamit dafa tax ndeysaan mbaskam ndaxte corona dégg naa temps yi rey na 25 nunus yoo xamante ni dee nañ ndax corona bi kon portez vos masques vous bu ñu demee ba ñii di tax mbas mi xam ne cas bi aggravé na gis ngeen prisonniers yi ah maa ngi ñaan eh, ñi caabi féetee ginnaaw yaa ne leen féete kanam ba ñu mën a ubbi seen bopp ba génn di jaayoo di fulaale def lu leen neex képp koo xamante ne nga am corona yaa ne yàlla taxaw képp ku ko amul nag la yàlla mos a ci lool ba tax na émission bi jeex na fii la yem fii la mën a yem daal tey ba beneen yoon.